élection présidentielle yu 2024 yi rendez-vous bu mag la ci wàllum politique moment la itam boo xamante ne candidats yi ñu ngi leen di xaar ñu leeral fan la ñu jëme réew mi moment la itamit boo xamante ne askan bi dina tànn moom kese mi nga xam ne moom mën a tànn njiitu réew ci loolee nag élection présidentielle dafa doon lu sacré lu am solo ci dund démocratie si réew mu doon nag ay principe yoo xam ne kenn waru ko jalgati élection présidentielle moment la boo xamante ne bu am solo boo xam ne du saa su ne lañ koy dund xam ne nag ñii di kandaay yi dañu war a def ay proposition wane itamit seen ay personnalité si jongante yi nga xamante ne moom la ñuy def waaye élection yu bëri nag jàll na ndax am na ay ñaari alternance si atum 2000 ak atum 2012 yoo xam ne dund nañ ko présidentielle bi ñuy xaar 2024 nag dafa war a topp élection présidentielle yi ñu weesu waaye nag li ñu gis fii ci Sénégal dafa mel ne politique léegi tabaxatuñ ko ci ay idée ay xalaat yoo xam ne day jëmale réew mi kanam ak programme yoo xam ne dafa wuute waaye li ñu gis jamono ji mu tënk wàllu politique bi moo di ay recours daanaka yoo xam ne dafa fule fulani sax si ñaari fan yi ñu génn ba acteur politique yi dafa mel ne ci recours yooyu rek lañu tënku fàtte sax seen projet yi nga xam ne war nañ ko leeral askan bi recours sax si boppam bonul ndax si njëlbeen amoon na ay recours yoo xam ne dafa tegu woon ci wàllum xel tegu woon tamit euh, ci yoon waaye fi mu toll nii li ñu gis moo yi di euh, jëflante ak tam bodd konte ci biir politique loole nag mu doon loo xamante ne askan bi sax daf leen a yéem jamono jii waaye nag euh, citoyen yi nga xam ne dañu nekk sous le choc ndax recours yoo xamante ne fu nekk lay fëlee di wane ñaawteef yi am ci wàllum politique askan bi sax ñi nga xam ne ñoo yor seen carte de vote ñoom ñi ngi koy ñaxtu ak di ko xultu waaye nag ñi nga xam ne ñoo di woy politique yi bu ñu yaakaaree ne askan bi ñiy voté dañuy croiser les bras di seetaan ndax nañu seen bopp sanctionné ñi nga xamante ne amuñu place ngir nekk président askan mi nag nekkul ne day def ay recours carte d'électeur am moom lay jëfandikoo